ami chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm fii ci biir Dakar Media TV comme ni ñu koy defee à chaque fois di leen toppal actualité yi en temps réel rawatina li nga xamante rek moo gën a fës ci actualité people bi ñu ci supposé divorce bi nga xamante ni ñu ngi ko koy waxal moom ak soxnaam si di Aïssa moom Aziz Ndiaye nag li mu wax leer na naññ nee na rek moom préparé na boppam ci ay rumeur ndax nit la koo xamante ni dafa siiw liggéey doo bañ ku la waxal wax ju euh, ñaaw waaye nag dafa am ñaari mbir yoo xamante ni rek faaw sénégalais yi daal di koy différencier moom mooy la liberté d'expression ak li nga xamante ni rek moom mooy liberté de mentir wala di diffamer ay euh, nit waaye nag li nga xamante ni ñu ngi koy waxal moom ak euh, soxnaam moom xam na soxnaam xam na kon ñeneen jarul ñuy xam kon lépp lu ñu wax rek seen bopp lañ ko waxal yooyu la kàddu la Aziz Ndiaye indi comme leeral ci supposé divorce moom ak ki nga xamante ni moom mooy Aïssa Rassoul ki nga xamante ni moom mooy may ma Mangone moom nag daal di nay interpellé directement ki nga xamante ni moom mooy soxna papa booy euh, jinne muy Ndeye Gueye moom nag lu ko jaaxal ba jaaxal moom mooy papa booy jinne euh, wala majj majji daanu yu métti yu muy daanu ndax lan la àppoo suuf bi mu àppoo suuf lan moom moo ko waral moo tax nag day daal di laaj Ndeye Gueye ndax papa booy jinne Ndeye Gueye daf koo teg loo xamante ni àttanu ko est-ce que papa booy jinne mi ngi nelaw guddi est-ce que mi ngi respecté entraînement wam ndax papa booy jinne dina teel a tëdd wala sax nag ndax papa booy jinne day ànd ak ay jigéen di génn question yooyu daal la laaj ki nga xamante ni euh, moom mooy euh, Ndeye Gueye daal mu tontu ko ci euh, directement ndax nee na rek moom mënul concevoir gis à chaque fois papa booy jinne daal àpp suuf bi ne du ko bokk ak kenn ay kàddu la Père ba Ngoné daal di laaj Ndeye Gueye bu ñu jugee ci loolu itam dañuy ñëw ci Moustapha Moustapha nag ñëpp xam nañ ko aussi ci seen petit gàlle nekkoon ndaw ci ñoom itam di compétir moom nag dafa daal di génnee benn single boo xamante ni rek libu yi la ko daal di euh, jagleel ndaxte rek nee na lu jig njaaga libu yi ñooy njaag ndax ñoom ñooy dugg ci li nga xamante ni rek moom mooy géej gi mu mét mu tàng wala mu sedd génnee li nga xamante ni rek moom mooy jën yi daal di koy baaxee askan bi ba tax na rek morceau bu bees bi daal ñoom la ko daal di euh, dédié waaye nag daal di nañ koy laaj ci départu Aïcha Koné ak ki nga xam ni moom mooy Aïda Samb ndaxte jot nañ ay information ni rek ñoom ñaar daal di nañu euh, divorcé ak label bi di Prince Art moom Moustapha li mu wax leer la nee na rek artiste bu yàkkamti mënul nekk fi nga xamante ni rek moom mooy euh, Prince Art ndaxte Prince Art boo fa nekkee ñoom carrière lañ lay liggéeyal carrière bu baax a baax la teg euh, ci sa kanam boo impatient wee maanaam nga yàkkamti lu bëree bëri euh, nga bëgg ko ci léegi léegi daal munta sotti ba tax na rek moom nee na li ko des li ko bàyyi Prince Art bokk na ci ay principe nit la koo xamante ni fëkk yóbbu ko te Prince Art nag boo fa nekkee da ngay patient boo bëggee def li nga xam ni rek moom mooy carrière bu ñu fa jógee itam dañuy des ba tey ci Aïcha Koné ñëpp xamoon nañ digganteem moom Mame Ndiaye neexul woon benn yoon ginnaaw problème bi nga xamante ni doxoon na seen diggante ba sax xanat ay waajuru Aïcha Koné daal di ci dugg fële ca Paris ca Zénith moom Aïcha Koné daal di na fay gisante ak Mame Ndiaye Savon daal di def vidéo moom Mame Ndiaye daal di koy apporter ay témoignages yu ama am solo nee na rek Aïcha euh, doomam la sax du rakkam te mi ngi koy ñaanal bu baax a baax ci carrière am musique am bi yàlla defal ko jàmm donte nag amoon na loo xamante ni jàlloon na seen diggante mais c'est du passé loolu jàll na Aïcha nag nit ku euh, baax la xale bu euh, yaru la daje bi ñu dajee Paris daal yar la ko daal di euh, wan donte rek influenceuse da day liggéey ak ñeneen ci wàllu produit loolu liggéeyam lay def ku ko fay xaalis na dem liggéeyal ku ko neex loolu dérangé wu ko mais à partir de ce moment daal moom jàppee na Aïssa Koné ki nga xamante ni rek moom mooy doomam bu ñu fa jógee itam dañuy ñëw ci Sanekh di sœur boo xamante ni kenn dootu ko présenté Sénégal ñu ñuy xamal ni daal moom Sanekh daal mu ci nakar ci ndaxte rek soxnaam suy di Sadia nekk aawam daal moom moo ñàkk li nga xamante ni moom mooy yaayam maanaam daal sa neex belle-mère moom moo fi daal di euh, wàññeeku ñi koy ñaanal yàlla sunu borom daal di koy xaaree ajana yu gën a gën a euh, kawe. fa jógee dañuy ñëw itam ci révélation yu am solo yi nga xamante ni rek moom Cheikh Ahmed Cissé ñu naanité yi nag daal di na koy euh, xamal sénégalais yi ci kan mooy jël ki nga xamante ni rek moom mooy Mbathio njaay kan mooy assurer train de vie Mbathio Ndiaye ba déglu vidéo bi rek daal di ñëwaat. Ngaaka Blindé ak Mbathio Ndiaye génnuñ Mbathio suma doom la génnul ak Ngaaka loolu amul. Ngaaka moo bëgg Mbathio en tant que sœur ñu bëggante xaritoo fa la yem Mbathio xoolul Ngaaka Ngaaka jabaram war na koo doy loolu amul loolu amul su amoon ma xam ko wax ça c'est pas vrai amul amul tey amul suba maa la raw suma doom ji ci loo nekk da bëgg sa tur dama laa tudd léegi rek nga nga woote sama tudd maa ngi nii di live suma paree woo la yaa ngi live mhm. waaw baax na ok love you baby Love you ngi dañ ko tudd rek mu woote. suma doom la Mbacco ku ko laal daf may naxari bàyyi leen Mbacco jubale naa ko am soo am soo dootul laalati Mbacco am soo suma taalibe la Mbacco suma doom la man daal ku ma bëgg bëggale ma Mbacco bu leen ko waxati dara. dégg ngeen su ngeen waxee mbaacul dara suma xol bi lay jàpp dafa may métti hmm? digganteem ak Sidi jóob du dëgg waaye nag Momo Dieng fari Mbacco Ndiaye la woon Momo cuucu doxanoon na Mbacco Ndiaye loolu dëgg la Momo Mbacco rek la na di ko topp rek waaye Ngaaka Blindé du dëgg lii ma nettali ci mbàcco nag ku ko nettali tey nga dee parce que man man munuma munuma denc sekkere lu bari moo jëm fari mbàcco njaay la woon mu naan saf na ba noppi ma ne ko dara safagut ba ñuy sàppali Mario Mbaye xamut boppam moom daf doon doxaan mbàcco mbàcco bañ waaye du far man lu ngeen bëgg a xam ci Mbacor exclusivité laaj leen ma ko man ma tontu leen man maay papa benn milliardaire mali la Mbacor di génnal kooku la teseloon France jaarale ci Sidi Diouf ñoo ko seetaanandoo dégg ngeen bu baax a baax moom Cheikh Ahmed Cissé li nga xamante ni rek indi na ko comme euh, leer nee na ñi nga xamante ni dañ doon euh, jiiñ Mbathio Ndiaye génn ak mbaa euh, Ngaaka Blindé loolu dara du ci dëgg Mbathio Ndiaye jigéenu Ngaaka Blindé la te Ngaaka Blindé ci boppam moom moo bëggal boppam ki nga xam ni moom mooy Mbathio Ndiaye waaye nag ki nga xam ni moom mooy Momo Dieng nee na moom moo doon doxaan ki nga xam ni moom mooy Mbathio Ndiaye yàgg nañu ñoom ñaar Momo Dieng Mbathio Ndiaye jaral na ko lu ne ne ba tey jii sax nag Momo Dieng mi ngi topp ci ginnaaw ki nga xam ni moom mooy euh, Mbathio njaay Mbathio Ndiaye nag kan moo koy jël jamono jii moom Ahmed Cissé daal dina koy leeral sénégalais nee rek benn milliardaire malien moom mooy jël ki nga xam ni moom mooy Mbathio Ndiaye jamono jii moom la taseel fi nga xamante ni sax moom mooy ca euh, euh, Paris maanaam gisante nañ fa kooku daal jamono jii moom moo nekk ci ginnaaw ki nga xam ni moom mooy Mbathio Ndiaye nee na nag ki nga xam ni moom mooy Mario Mbaye tam nekk ex bu ndaxte jéem na fee doxaan Mbathio Ndiaye mais Mbathio Ndiaye daf ko yemale place am ne ko nag duma sa bu ñu fa jógee itam dañuy ñëw ci révélation yi nga xamante ni def na ko ci Dora Gueye ci libération wam na ñoom ñaar nag daal di euh, déggoo téléphone live en direct waxtaan nañ ci lu bëree bari moom Dora Gueye daal dina koy xamal maanaam bëgg-bëgg bi nga xamante ni am na ko euh, ci euh, Sénégal maanaam daal ci jeunesse bi ak ci nguur gu bees gi naka ak nan la war a mën a liggéeyee ak ñoom ñu waxtaanee ak Dora Gueye nag moom Dora Gueye loolu la ko daal di xamal maanaam bëgg-bëggam ci réew mi ak ni nga xamante ni rek noonu la bëgg a jàppale jeunesse bu euh, Sénégal waaye nag lu ñeel euh, vidéo yi nga xamante ni mu ngi euh, circuler te moom ay dara daal di koy dugal ci sinabam mu daal di tas ci réseaux sociaux yi maanaam fi muy raaye ay tànk Doro Gueye di raaye loxo Doro Gueye ñëpp ne Doro Gueye ba mu génnee ca prison ba ca Racky Aïdara la njëkkee nee na loolu dara du ci dëgg moom Ahmed Cissé mooy wax nee na vidéo bi ñuy wax Clarisse foofu la vidéo yooyu amee kon nag li nga xamante ni nit ñi ñu ngi ko doon laam-laamee diggante Racky Aïdara ak ki nga xam ni moom mooy Doro Gueye maanaam daal loolu léegi kenn waxatu ko ndaxte rek Racky Aïdara soxna la ci ki nga xam ni rek moom mooy Doro Gueye quant à ki nga xam ni rek moom mooy Clara itam daal dinay dugal benn video wane carrément ni Doro Gueye ba mu génnee ca prison ba këram la añee ak ay euh, mbokkam nee na nag moom ay dara lan moo ko dugal tax muy dugal ay euh, vidéo digg digganteem moom ak euh, Doro Gueye ndax Karala lay defanteel en tout cas daal lu ci mënta am daal leeral yooyu la ci indi na vidéo yooyu daal du vidéo yu récent vidéo yu yàgg la ndax Doro Gueye ba mu génnee ca prison ba dem na ci Racky Aïdara question bi foofu la ndaxte bu demoon ci ay Aïdara moom Racky Aïdara dina am ay vidéo yu bees yu Doro Gueye waaye amu ko yii mu dugal ci sinabam ay vidéo yu yàgg la ñu tëjee ak euh, Mbathio Ndiaye moom euh, Mbathio Ndiaye nag ginnaaw réussite si ba fële ca Zénith méttee métti la ko daal di euh, euh, euh, fajee ñu dem sitaan benn extrait vidéo Mbathio Ndiaye fa muy jooyee daal di ñëwaat. Mbathio yaramam daw na ndeysaan yaramam daw na Mbathio Sidi sa Sidi sa sa frère la nga def lu baax ndeysaan parce que yéen a sonn léegi Sénégal yëpp ngi lay nuyu Mbathio mi a Aïe. boo ko seetaanandoo moom Mbathio Ndiaye jooy na ba xolam sedd ndax nee na xolam dafa sedd ci Sidi Diop ni nga xamante ni rek noonu la def uh, ca uh, Zénith waaye nag jur na ay commentaires yu bëree bari sénégalais yi daal ñi ngi koy yàq mbelegaan ci li nga xam ne rek moom mooy uh, réseaux sociaux yi ndax gis nañ Mbathio Ndiaye boo xamante ni rek maanaam dafa daal di naturel deful benn maquillage wane boppam carrément nii la mel ba tax na rek nit ñaa ngi koy yàq mbelegaan ci réseaux sociaux yi amis chers fidèles internautes lii lañ leen indi ci tënk ci actualité people di leen jox di daje demee incha allah ci yeneen actualité d'ici là portez-vous bien.